plus sénégalais yi seen pouvoir d'achat mu yokk aussi seen consommation day yokk état bi gën ci gën yaa ngi wax ci pouvoir d'achat on peut espérer avec l'exploitation du pétrole et du gaz ñu gis une amélioration positive sur le pouvoir d'achat des sénégalais bon ça c'est relatif si et seulement si mu accessible parce que euh, le modèle économique qu'on a pour le moment même si on a dit dans la constitution article 25 que les consommations minières appartiennent au peuple mm-hmm. mais y a aucune alchimie qui va permettre à un citoyen sénégalais mmh. d'avoir un des dividendes sur le pétrole et le gaz à moins que mu nekk local content mmh. mais pour le moment nii choix boobu du le contraire day wàññi pouvoir d'achat parce que pétrole gaz dafay yéegal économie benn niveau dafay am étrange yu ñëw location yi ñoom luyee huit cent mille ils vont à le prendre à million cent à deux millions trois cent mille lépp yéeg vie bi cher Mmh. loolu day wàññi si pouvoir d'achat. mais qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va bénéficier. de alors li ma xalaat mooy déjà li may xalaat mooy. Mmh. état bi par mois on a au sein du par mois au sein du CDS. Mmh. on a initié un projet. état bi mën na ko jël en expérience par exemple. ñu créer un fonds d'investissement national pétrogaz. foo boobu lu muy permettre mooy tous les sénégalais nekk actionnaires dans le pétrole et le gaz en quoi faisant. ñu jaay actions yi ay actions yoo xam koy jaay. de dix mille francs minimum à x millions mm-hmm. selon tes moyens loolu day tax Petrosen mm-hmm. les dix huit part yu am mu jaay ko Sénégalais yi mais que les citoyens sénégalais seront éligibles mm-hmm. pour jënd ci action yooyu y a de la diaspora qui ki euh, qui qui qui plus de mille milliards par an au Sénégal imagine rek boo capté vingt pour sa wala trente pour cent de ce montant là ak l'épargne domestique bi Sénégalais yi mën def tous les fonctionnaires yow man pour suñuy doom ñëpp ñu réinvestir ay ay cent mille francs deux cent mille trois cent mille facilement on peut en une année quatre cent à cinq cent milliards cent milliards yi boo ko tegee joxe état état man na ko permettre mu lever yeneen mille milliards wala mille cent milliards pour de racheter déjà par Petrosen mais aussi yenn puits les vingt cinq puits qui restent état bi xool yenn puits mu jox ko fonds boobu parce que boobu y a que les Sénégalais qui sont dedans mhm. jox leen benn puits pourquoi pas à un prix symbolique où l'état même peut être actionnaire dedans encore et loolu moo lay permettre demain nga créer ay pétrodollars sénégalais sénégalais am assez de pouvoir d'achat même mburu bu jaree cinq cent francs dañ koy jënd parce que ils ont les moyens baax a baax avec jël ko avec des avec des pincettes. oui il faut jël avec des pincettes parce que il faut ñu ñu faut ñu ré ñu réinventer. Mhm. le modèle économique permettre aux Sénégalais d'accéder aux dividendes. d'accéder au bénéfice du pétrole et du gaz du sax état rek loolu laa wax si si investissement boobu mais am na benn boo xam ne c'est local content tout ce qui est pétrochimie doo gis ay sénégalais pour le moment nii mm-hmm. parce que c'est un métier pour le moment alors que état dafa am yoo xam ne yaa su ko nepp le régime exclusif sur local content loo xam ne seuls les mm-hmm. ñoo si mën a mais sénégalais bu accès information bi mm-hmm. balaa nga am naam nga ne fa parce que information bi ñoom information bi c'est c'est un minime minime ñoom information bi mm-hmm. te minime yooyu ils n'ont pas les moyens de mm-hmm. il faut nga nga mun information nekk lu accessible wax sénégalais yi pétrochimie lii mooy pétro pétrochimie mooy xaalis bi mm-hmm. du pétrole bi ngay jaay rafet non même la raffinerie sax amu il faut ñu may raffinerie bu bees souvent mais tout ce qui est mooy boo ko raffiné pare déchets yi des mais tout ce qui est plastique tout dix fois plus rentable que le pétrole le, pétrole. le trading loolu mooy créer des emplois massifs mmh. aussi urée si gaz nga ko jële gaz nga ko amee yooyu yëpp il faut ñu am initier toutes les chaînes de valeur que Sénégal yi mën si investir te loolu dafay nekk un programme de mise à niveau loo xam ne tout ce qui est ressources état moo koy def ak de business l'ère des chiffres l'ère sénégalais yi man si investir pour man si gagner xaalis pour man loolu mooy change bi et loolu mooy renforcer la capacité d'investissement des sénégalais créer un Sénégal développé mhm. avec des sénégalais qui sont émergents qui ont les moyens qui ont les qui ont président temps bi ñu